jàppale leen ma ñu way bu ñu paree ñu waxtaan. oh yeah. beaucoup j'espère que dina ko dégg te mu nekk ci euh, hôpital bi parce que xam nañu ni ay xolam xelam lépp a ngi fi ak ñun di remercier société civile bi di wax ngeen tàccu leen tàccu leen société civile bi des taxaw ba léegi tàccu leen leen macha allah c'est pas facile c'est pas facile que ñoom malgré les ñu continuer taxaw moo waral tey ñu am bis bi nga xam ne tous les citoyens sont unis ici pour le Sénégal pour la démocratie donc nañu continuer ci lancé bi demain am na ñeneen ñuy woote gannaaw suba am na ñeneen ñuy woote di wax rek ne combat bii ñuy mëne pour le Sénégal kii di Ousmane Sonko daf ci nekk la solution malgré que mu ngi ci diggante malgré que mu ngi hôpital gëm nañu ni lenn rek lañ koy ñaan di ñaan yàlla mooy mu may ko gudd fan parce que lenn de wóor na amul Macky Sall fu mu mën a jaar ba du wàcc 2024 amul Macky Sall fu mu mën a jaar ba du tere yéene bi jeunesse bi am ci Ousmane Sonko mu eggali kon nag nañu am fulla nañu am fayda bu ñu kenn xoqatal bu ñu kenn tiital bu ñu kenn tapet parce que comme ñu fi jaar lu ñu wax léegi léegi ñun duñu ay défaillant ñun duñu ay traître ñun duñu jël gaal gi ñun duñu daw ñun duñu dayyi dañuy taxaw jàmmaarloog Macky Sall xeex nag Sénégal parce que moomuñu moomul Sénégal moomul suñu avenir on doit nous battre on doit nous battre téléphone pour ñu dégg ko mu ngi résister au péril de sa vie alors résistons au péril de nos libertés c'est le moindre qu'on puisse faire battons-nous si nous voulons être libres merci tout le monde. merci beaucoup sunu sœur Maïmouna Bousso. jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci merci merci jërëjëf waaw mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant ah, man comme c'est la première fois xam naa sama kàddu du du xaw a <laughs> waaw waaw waaw waaw waaw waaw bana waaw waaw waa jërëjëf waa ndaje tey bi man benn seetlu rek laa si am boo leen xoolee en si peu de temps lu fi daje si nit da ngeen di xam ne le le source la source du problème ce n'est pas la population c'est l'autorité administrative boo xoolee policiers yi nu ñu encadré tout le temps damay wax ci télé yi ne que les gendarmes et les policiers duñu suñuy ay ay ennemis mais malheureusement c'est l'homme politique qui crée une situation boo xam ne day indi ay jafe-jafe donc vraiment maa ngi leen di ñaan di leen sant di leen gërëm yéen ñëpp vraiment si ndaje bi je vous remercie vraiment vous tous merci. réewu liberté la république fi fekk liberté réew mi fi la la révolution Torodo amee ci 1776 réew mi fi la Thierno Baal nekkoon réew mi fi la almaami Abdou Khadir nekkoon.

kon réew mi ab ragal yeewoowu fi di leen wax ni ma daaneel parce que waxtu wi jeet na benn verset coranique laa leen di wax bu samay wax du waxu benn sëriñ waxu sunu boroom la yàlla moo wax ci alquran ni inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifie pas ce qui est en kon xeex bi kenn duñu ko xeexal xeex bi kenn duñu ko xeexal xeex bi xeexu jeunesse bi la xeexu peuple bi la isa shaabu yawman arada al xayaa fala budda an yastajiba al xadar peuple lépp lu mu bëgg kenn mënu ko arrêté tey le peuple sénégalais ñoom ñooy réclamer ay élection yoo xam ni élection yi inclusive la le peuple sénégalais ñoom ñooy réclamer la libération des détenus kon monsieur Macky Sall man Imam Dramé sa xarit maa ngi la koy maa ngi waxaat ak yow di la wax ni réew mi rien trop tard pour nga am yoon boo mën a jaar dem fii kuy jàpp mer fii ku dul fàtte fi monsieur le président réew moo soxla candidature Ousmane Sonko encore une fois nañu xam ni le combat est loin d'être terminé le li gënoon a jafe romb nañ ko ñeenti weer moo leen fi dese ñeenti weer ku xeex nag fukki at ak ñaar ba ñeenti weer dese la amoo droit di dellu ginnaaw nañu taxaw tepp xam ni combat bi gagné bu loolu passé ñu ngi félicité bu baax la société civile di leen encouragé di wax ni nag li ñuy wax ñun dañu ñëw marche bu pacifique la ñu woote woon ñëw marche ko ci marche bu pacifique ñu ngi ñaan ñëpp delluwaat ci seen i kër ci pacifique parce que réew mi ñi fi nekk ñëpp a fi bokk am na loo xam ne xaju fi di wax ni le Cheikh Anta Diop wax taxaw tem ngir Sénégal taxaw tem pour libérer Ousmane Sonko taxaw tem pour mu nekk candidat taxaw tem pour Amadou Ba bañ a am 10 pour cent le 25 bu in uridu illa al-islah wa ma tawfiqiya illa billah wa salaamu aleykum wa rahmatullah ka faykan gi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw jëfandikoo lii dégg jàmm yónne ak jot xaalis bu gaaw te wóor kàppee la waaw waaw